ay bayt rek laay wax maa ngi ñaan ku ko dégg yàlla sa pajug aajo ci barke Cheikh Saliou Mbacké turam bu tedd wi yeewnal barke Cheikh Abdou Lahad abli bi jaayi man huwal wa dunya wa uxra xayra ma axtaaru wa wa dunya wa uxra xayra ma axtaaru wa wa دنيا وأخرى خير ما أختارها واجعل حجابا بيننا وبينها كل آسا والتكفي أن العين يا الله يا نسير يا جليل إني حقير مهدم سليل فلتغنني بك وهب لي العرب بمن على جملة هجم وعرب سيدنا محمد سيدنا محمد باب الفلا وسيلتي إليك في نيل صلاة وصليا وسلما عليه وكل من خدمتما إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي ولي هب خيرا منا وعمل يامن على أن مكان والخرل إني ذاكن أنا وبمرل فكن أنيسي وأشفني من السقم أتى أكون سالكا خير لقما يا هدلو يا مسلو يا منيو مؤمن أنت مجيرينا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا سر الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على أن زوجة وأن ولد مني وهد جميع أهلي البلد وجهل إلهي مسكني توبا أبد متتمها بجاي خير من أبد وجل إلهي مسكني توبا أبد متتمها بجاي خير من أبد وصليا عليه afdala salaat وآله وسهله سوي سلات وكل من خدمني أو سارا فنجيه واغفر له أو سارا وكل من خدمني أو سارا فنجيه واغفر له أو سارا وكل من أحبني ومالا إلي فرتقه أدا أو مالا وكل من ختمني أو لما فأبو له توبة واستسلاما فكل من على أذنه فهو بيا فليقلب قلبه يا ربي يا وتكفني أسى جميع العالمين وتكفم أسايا يا ربي أمين وجهل بنائيا بناءها فيا يجرني إلى قيور صافية وجل بنائيا بناء وعلم وعمل بسنة وعلم وجل بنا إياها بنا الاعتداء وتكفي عني كيد كل ذي تدعى وتكفيني دهر أساس شيطان ويس به الباقين في الأوطان وتكفي عني كل شخص لم يرد وجب فترفع الزريقا إذ يرد ولتترف الجملة ما يفسد أن يدي وأن داري سريعا حيث أن وتدخل المصلحة في يدي وفيها داري وثابتا هو بالآدي وفيها وأهلني وأهل من يؤينني ودفني جملة ما يهينني وأهلني وأهل من يهينني ودفني جملة ما يهينني ومسكني سلم مجارها ومن على علي بما ينجارها ومسكني سلم من الفجارها ومن على علي بما ينجارها وجل ربي مننا المهاجلة جالبة للمنن المهاجلة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم كن لي مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بساك xaidi ilah kodak waliyakun ربا وليا ونسيرا ولجميع المسلمين يا بدر وكثيرا خيرات آسى البلد وكثيرا خيرات آسى البلد ورزقه والتكفي أنك دماء وتثبتنا فيه جماعة تقيمها الصلوات الخمس دابا يا كيما وتثبت فيه جماعة تقيمها الصلوات الخمس دابا يا كيما ونجنا من سر هذا ثمني وسر خيره وكل الفتن والباقنا زر النصارى واليهود وسر إبليس وكل سجود والجن والدجال وسودان في سرق والمغرب والبدان وسر ما في الأرض ترا وسما من ظاهر وباطن اكتتم يا لطيف يا كريم يا جليل حمل جميعا بالفكر الجميل وكن لنا كل نجاة وفلاح ووافقنا لثواب وصلا وتخرنا بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا من أحد درب بما لا يطيق يا سمدنا وأبلنا تيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح وأبلنا تيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح وأبلنا تيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح وجنة لسالك المريد وجنة عن هاتك المريد وجنة لسالك المريد وجنة عن هاتك المريد وجنة لسالك المريد وجنة عن هاتك المريد ومن بهن لكل هاد مسلم ومرفعا عن كل هاد مجرم waajatan liman bi dox fin irtadaa wawjatan ala muxalafil xadaa wa matlaban li taati raxiimi wa mahraban min taati rajiimi wa matlakan li subul ibtidaa'i wa matrukan li subul ibtidaa'i wa maskanan li jalbi kulli xayri wa maskanan li dafi kulli dayri wa sababan li fadi xayral xaybe wa sababan li dafu dayral xaybi وارض إجاب رزق وأمان ورحمة وساحة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى أرفع كل سوء داري واغفر لمن بنوا بنا عرفي واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أهانهم على بنائها التي بفضلك اهتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللتي لها لخير ركنا وتجعلنا ذات الامتلاء نورا ورحمة بالانتهاء ورزقها حتى الأطياب العلالي في العسر ويسر على التوالي ولي يجد في به المينفه ورفعة الشتي بقلب يعصأ ولي فيه دهاء يسمأ maal qanaatin bi nafsin tasba'u wa zawjatan saaliatan tuhiinu ala tuqaa wal birya mu'iinu wa zawjatan saaliatan tuhiinu ala tuqaa wal birya mu'iinu wa asbilan kanafa shitrika bat علي مه جملة أهلي يا سمد وادري ترابقات إفتك على داري وما بها جميع المسجلة ولتلقي للجميع في مكنوني xay bi ka wax jumna anil futuni wa antira anil xalqi wa rasaya wal jinni wa saytaani wal balaya wa amirani bil tuqa wa nuuri wal tudi wal waraayi fi duuri wa maskani ical maskanan xufrani wa rusdi wal irfani wa ridwani wa daara ixlaasin wa siddiqin wa raa wa daara sunnatan wa man jam min bida وجلوا دبم مسكنا تعلمي وموضع الفكرات والتفهم ومسكن الإرشاد والتهليم ومسكن التسويب والتفهيم وجلوا مسكن خروج من سلم لنوري وفي حنه كل من سلم وجلوا دبم مسكن اتباعي لسنة لا مسكن ابتدائي وجلوا يا وجلوا يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللميسني والتهم داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور والتهم داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها أنها وطيب شربا وكلها وجل أريمنا أريما آمنا وكن بإثنيك فيلا دامنا واجبل الخير من الجهات عشتي وفيها عن الآفات xutni ani seytaane yaa jaliilu wa maskani wa kulla ma ahoolu yallaahu yaa afiisu yaa salamri yaa faa'iqal xalqi maan bil qahri nafsi wa diini suma ahli wal walad wa maskani laka wa jeexatul abad nafsi wa diini suma ahli wal walad wa maskani laka wa jeexatul abad nafsi wa diini suma ahli wal walad wa maskani laka wadi'atun abad wa kasa dunyaya ma ukhraya fa fihima anidri fi rasaya واضرب صوبا ناري عن جملة من بيتخلق من أبناء سمن وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والأجانب فليكن إذنا مدابا يا صمد توالني ولا تكيني للأحد ورم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلة لك ولي أب حسن الختام هندك والتطريف صلاة للصحابة عن آله وأبلي الإجابة Seex Bamba daal di ñaan ci barke jiili naa yàlla maay saafihum kullu jiili Seex Bamba daal ñaan ci barke jiili naa yàlla maay saafihum kullu jiili maay xaadimu rasuuli fi soodaani maay ramu xarnu bi ani niiraani ku sopp borom Tuubaa maay xaadimu rasuuli fi soodaani maay ramu xarnu bi ani niiraani maay xaadimu rasuuli fi soodaani maay ramu xarnu bi ani niiraani buur yàlla daal di signé jox yónneen ba mu daal di signé gaay yi jiital bamba buur yàlla daal di signé jox yónneen ba mu daal di signé gaay yi jiital bamba lisaanu aal daal di waxanteeg bamba ca saaru yoosufa mu teeñu yan ba yan bañ yanoon xut bu yàgg la daaya te attanun ko moo ko fab raw gaaya sëñ Moussa ne yan bañ yanoon xut bu yàgg la daaya te attanun ko moo ko fab law gaaya dëngiñ di wéy te tewatul balaaya sooratul axwaani la am ci laaya bàyyi sëriñ saali woo ni dëngiñ di wéy te tewatul balaaya sooratul axwaani la am ci laaya sëriñ si naaqis lañu bambay kamil mbër yëpp suq lañu bambay kaabal man sakka fi saliki fal yu jari bi wa man yu jari bi baa bi taqar bi idil awalin wal axirin allasi lam yuxlaq mislahu bika tagg na yonente bi yonente bi tagge na ko nu ne tagge na ko nu sa sëñ ji dafa mel ni ku jàkkaarloog Seydina Muhammad ni dootu feeñ de ci écho bi ñu ne ko comme doon mu ne ko mel ni Seydina Muhammad yàlla dootu bind ku mel noonu ak bëgg rasulullahi mahat mahabatiyal muxtaari sayyidina hubbil maqaalina wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaawu lahu abdan qadiman lahu muskaana li sanada lahu dahra niyati wa hilmi wa xidmati wa ruuhi wa jismani wa kulli bila sukri wax na ko lu lay mel ni ku jàkkaral moom ni ko lam yabdu lam yabdu lam yabdu lam yabdu mithlu Mustafa Muhammadu siran wa jaran fi baraya asamadu lam yabdu mithlu Mustafa Muhammad lam yabdu lam yabdu lam yabdu lam yabdu lam yabdu lam yabdu lam yabdu lam yabdu ku bëgg Seydina Muhammad bàyyi Serigne Saliou Mbacké nee na lam yabdu lam yabdu lam yabdu lam yabdu lam yabdu mislu Mustafa Muhammadu siran wa jawran fi baraya ya samadu madalana al-islamu wal kufra maha wa bi nazak li kulli sama yaqudu yaqudu bi sayri wal baatini man yaquudu yow Seydina Muhammad Seydina Muhammad yaquudu yaquudu yaquudu bi sayri wal baatini man ataahu ataahu ataahu lillahi fi kulli zaman xidmatuhu xidmatuhu خدمته خدمته خدمة أن يبقى ثبت خدمته أن يبقى ثبت خدمته yow seyduna muhammad xidmatuhu an huya bi asabat wala istiqamatan wasafan wahabat libaana kawnin mustafa mustafa mustafa mustafa mustafa raisa libaana libaana libaana li ban kañul Mustafa Raisa li kulli man xalfu di lo rausa Seydina Muhammad xadamata raqaba kuli raqaba ku sopp sëriñub Cheikh Ibra Fall nee na xadamata fawqa kuli raqaba moom Seydina Muhammad kuli raqaba min utaqarar xurra kuli manqaba Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad def leen ni nu magal Seydina Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammadun misaalu lam yëy Muhammad maa bayna al-xabri wa man bar rawdati min riwaal janna Muhammad rasulullah Muhammad muhammad muhammad muhammadun muhammadun muhammad misaaluhu lam yudi def leen ñu magal seyduna muhammad bàyyi sëriñ Saliou Mbacke nee na seyduna muhammad muhammadun misaaluhu lam yudi muhammad ma bayna al xabri wa man dara rawdati melowal janna melowal janna muhammad muhammad maman mejalu lam yaati fi mama daw abadan la yaati sabata an rabbana lam yaridi mislahu sabata sabata sabata sabata an rabbana lam yaridi mislahu fa mislahu lam yaridi لوسيادة له البراءة يوم ألست ولد صفا هو النبي هو النبي هو النبي هو النبي هو النبي yow Seydina Muhammad huwa nabiyu huwa nabiyu ku sopp Muhammad rasulullah bàyyi Serigne Saliou Mbacké nee na huwa nabiyu huwa nabiyu huwa nabiyu wa rasulu هو القليل هو الحبيب والإمام والدليل هو النبي ورسول والخليل هو الحبيب والإمام والدليل براءه البديع من خير جمال وطن قدوس عن خير كمال كون النبي منتخب muntaxa def leen ni nu magal Seydina Muhammad muntaxa muntaxa muntaxa muntaxa Muhammadu xarit waral muxtaara inda samadu seex muntaxa ni mu mel la seex basiiru meloon balay sa kon gàcce ngalaama da nga yokk li fi newoon ku sopp seex muntaxa seex muntaxa nii mu mel la seex basiiru meloon kon gàcce ngalaama da ngaa yokk lii fi nawaan Seex Muntaxa Seexal Basiira lu jur jàngal la yar la bu wér moo tax nga silvisé am xam-xam ba dee fi la wër Seex Muntaxa Seex Muntaxa def li ni lu magal Seex Muntaxa Seex Muntaxa nii mu mel la Seex Basiiru meloon kon da nga laama da yokk lii fi newoon Seex Muntaxa Seexal Basiira la jur jàngal la yar la bu wér moo tax nga silvise am xam-xam ba deefu la war sëñ Fallu Mbàkke mat na ni bis Seex Muntaxa ko ko raw amul ci Mbàkke mbusoobe kokki ñépp ko naw salaatu wasalaam ala rasulillah góor gi ñu ngi jéglu bu baax